seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen may li ci yéene kaay chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm dalal leen jàmm ci li gën a yëglekaay yi ñu ko Vox Populi mi del soit ci match Sénégal Cameroun bii nga xamante ni ndiki tey jii lay am ci àjjuma ji bu 17h jotee ñeel Coupe d'Afrique des Nations bii yéenekaay bi dañu xamal ni deuxième match Sénégal bii nag du yomb benn yoon ndax bu ñu sukkandikoo ci entraîneur suñu gaynde yi di Aliou Cissé nee na moom noppi na te suñu gaynde yi ñuy xaar xam nañu suñuy défi nañu confiance te li ñu bëgg moo di gagné nag ne moo nekk ci match ne Sénégal Cameroun daawul yomb benn yoon ñun Sénégal sax dem nañ bay jàppee Cameroun mi bête de compétition saa yi ñu dajee rek derby lay doon Sénégal Cameroun tey jii bu 17h jotee Idrissa Gana Gueye mi ngi xamle ne bu jaree guerre danañu guerre ñoom Cameroun yi bu fekkee ne guerre la bëgg itam danañ am ndax duñu leen may dara dem ba jeex fut su gaynde Cameroun yi moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne ñun daal match ak tey jii moom final lañ ko jàppee suñu digganteeg Sénégal 3 points muñ ci tax a jug kon duñu leen may dara nag ci terrain bi Sénégal nag fi mu toll nii ñëpp ngi xaar match bi yéenekaay bi desuwaat ci wàllu wàllu politique ak recours yi nga xamante ni mu ngi mel ne tulleeg ma la ca conseil constitutionnel rawatina bu Amadou Ba visé woon nag Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye mi nga xamante ni ni ki démb génnoon def conférence de presse leeral ci tuuma yi nga xamante ni moom la candidat wu benn bokk yaakaar bi teg ci ndoddam Cheikh Tidiane Dièye di xam ne ci biir yéenikaay bi ne wallaay dégg naa tuuma yi dama ko talutoon kase li tax ma a tekk tekkaaral fan yi yépp mu damaa nekkoon ci sama bopp di ci sama wàllum programme ngir askanu Sénégal gi moom Cheikh Tidiane Dièye yamu ca ndaxte mu ngi xam ne ci biir yéenikaay bi ne mësumaa gis ab mbër bu ragalee ay adversaire Amadou Ba ci ay tappale dong la nekk dèjà tuuma yi mu teg ci sama ndodd nag na man damaa bokk ci benn parti politique bu ñuy wax avenir Sénégal te yàlla mi ñu tiim xam na ni xaw ma ab parti bu tudd avenir Sénégal man sama parti tuddul avenir Sénégal na xooli beneen candidat boo xamante ne nii parti avenir Sénégal moo ko porté man parti avenir Sénégal nag porté wu ma leneen li mu weddiwaat moom Cheikh Tidiane Dieye moo di Amadou Ba nee na damaa bokk biir Pastef bu fekkee ne jege ma jege président Ousmane Sonko moo ko tiital wallaay dana gën a tiit ndaxte man damaa fidèle ci moom waaye nag sama parti politique mustud dugg ci biir Pastef daat fay seey loolu tamit dama bëgg mu leer Pastef ni mu nekkee parti noonu laa amee parti politique moom Cheikh Tidiane Dièye am gàccal loolu nag ci kàddu yi nga xamante ni ku toll ne ab premier ministre du Sénégal nekk ab candidat ba noppi argument yi ngay teg comme preuve pour liquider say adversaire dara du ci dëgg te dara jaaru ci yoon lii nag moom bett na ko loolu nag ci Amadou Ba léegi fa yéene ne Cheikh Tidiane Dièye yemul foofu bi ne obligation la ci man ma ñëw daal di leer na ko teg ko ci sama ndoddu waaye nag balaa may tàmbali am naa gàccal loolu laa la wax ci suñu premier ministre boo xam ne nee na candidat la waaye bëggut a kenn bu sañoon liquider adversaire am yépp soog a dem ci élection présidentielle yi mbiru xale dong nag laa ci sentir man nag duma ci toog di concentré di perte sama temps maa ngi sama programme fas yéene ci fan yi ñu jëm taxawal sama directoire de campagne soobu nag ci élection présidentielle directoire de campagne am jël Barthélémy Dias teg ca bopp ba ndax jàpp na ne moo gën a yey ci poste bi ni mel source a delluwaat ci détails yi nga xamante ni Cheikh Tidiane Dièye indi na ko pour leeral nag ci accusation yi nga xamante ne ni Amadou Ba teg na ko ci ndoddam moom Amadou Ba dem bay tuumaal Cheikh Tidiane Dièye weddi ko ba mu set wecc na man bokkuma foofu yemu ca moom Amadou Ba dem na bay indi benn photo boo xamante ni mu ngi daté depuis 2019 Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye na xaritu Ousmane Sonko la te ñoom ñaar ñoo bokk benn parti bii di Pastef te képp ku bokk ci parti boobu nga xam ne bañu ko taseeg léegi matul at yow mënoo bokk laa la wax ci élection présidentielle yi ñu jëm Cheikh Tidiane Dièye ne ko li nga teg di yëpp nag dara du ci dëgg dèjà bokkuma Pastef am naa sama parti sama parti moo di avenir Sénégal bi ñu bëgg te bañu ko taxawalee ba léegi sii laa la wax ci la ñu nekk lépp pour nag justifier que ne Amadou Ba li muy wax nii yëpp dara dara dara dara du ci dëgg moom Cheikh Tidiane Dièye dem sax bay ne ne waroon na fekk Amadou Ba en que premier ministre mu nekk ci leneen leneen lu dul di sonn ci benn candidat di wut ay justification pour xool nu mu koy liquider ba du bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm waaye nag du ci mujjee am ndam ndax ñun ñoo ngi sonnee leneen lu du ay accusation pour liquider ay adversaire yéenekaay bi des tamit ci dossier bisu yaraax ba ñu taaloon yéenekaay bi ne Serfal ma ñu waxoon ne dañ koy wër nit ki démb nag jàkkaarloo na ak justice bu Amérique mu fas yéene demaat ca kanamu tribunal ba le 12 avril bi da ci fàttali juge Maham Diallo ci boppam moo ubbi woon bi waxoon fi ne juróom ndaw nag fi mu toll nii nañ leen ci taalum bis boobu ñeenti ñi nag jàpp nañ leen ba noppi bi ñeenti ñu ñoo daw réer fi toll nii nag ñu leen di wër bokkoon na ci nag Sayer Fall mi nga xamante ni ci doonu Amérique lañ ko mujjee gis réewuk Amérique nag fi mu toll nii ñu ngi cay def seen liggéey enquête yéeni kaay def taxaw seetlu ci opposition bi nga xamante ni mën nañu wax ne dafa mujjee divisé wu tas tasata lépp nag li ko waral moo di ñenn ñi dañoo bëgg ñu reporter élection présidentielle yi yéeni bi dem sax bay xam ne ne gis nga kuréel gi nekk ci opposition bi bokk ci candidat yi nga xam a mujjee recalé seen objectif ci lettre bi nga xamante ni lijjantiwaat ko waaye président Ousmane Sonko dafa mujjee génnee benn lettre boo xam ne dafa seppi boppam laa la wax ci kuréel gi di mel xamal leen bokkuma ak gis-gis te bokkuma ci kuréel gi ni mel yónneewuma fa te santuma kenn mu demal ma fa te la mu ci doon bañ moom président Ousmane Sonko moo di dugg ci kuréel goo xamante ni suñu objectif moo ñu reporter élection présidentielle yi di ñëw te moom Ousmane Sonko bëggul li ni mel yemu ca yéenekaay bi xamal nañu ne ci wàllum reportu élection yii ne xalaat ko sax ci boppam moo jekkul élection yi moom dina am ci nii wala ci naa kon nag ku mu neex dana bëre ku mu naqari tamit dana bëre Walf Quotidien moom desuwaat ci samedi suba gi nga xamante ne ci la conseil constitutionnel di def publication liste officielle yi nga xamante ni ñoo ñeel candidat wu élection présidentielle yi ñu jëm waaye yéenikaay bi xamal nañu ne am na ay candidat yoo xam ne ñoo ngi toog ci la ci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 Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñi nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñi nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum